بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه سبي النوال ولي بارك برم تايف بوك جلدي بوك طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوغي نيانا سرين توبا سرين منتقى بشير سن برم ياغل كفي لول مباكي تمي كوير دفكو نجبور سرين توبا جيب لكو دارك شيخ محمد المصطفى بكي شيخ محمد المتدى أمنا نيوم بكتنا تاي داجي في تي أتو شيخ الخادم بي دي كر سرين بسير مباكي موم شيخ عبد الخادر noo ngi ñaanal Cheikh Ahmadul Moukhtar bi nga xam ne tey mooy caabu dëkk Cheikh Modou Moustapha suñu borom yàggal ko fi loolu te may ko wér di ko ñaanal tamit Serigne Abdourahmane moom Serigne Cheikh Fatma mi nga xam ne ab taalubeem ab dongoom moo waral tey jotaay bii muy Serigne Pape Fall noo ngi ziar ñëpp di ziar mboolem njabootu Serigne Touba gi fi teew yëpp waaye di jël nuyoo bi ak ziar bi nag di ko teg ci jëmm ji nga xam ne mooy kilifa jotaay bi te yor kaddu Serigne Touba muy Serigne Bassirou Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Khadir noo ngi koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal lool Mbacké te may ko wér diko yàlla ci mbolim kilifa yi nga xamne tewna fi Cheikh Mouhamadoul Badawi mom Cheikh Amadou Fadal yabal na fi délégation legui bi ci loxam la tege njabotu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke gayni Fatma Serigne abdou rahman gayni Fatma yabal na fi Serigne basirou Ñaan Cheikh Mbacke Mboup ak Serigne Ahmadou ndjay ngeran fami Serigne Ibra sar ndjay buntu keur yep nga fi khalifa bi Serigne Sidi sar mi ngi fi wa keur Serigne Modou sar ñi ngi fi wa keur Serigne Baye Serigne sar ñi ngi fi wa keur Serigne Mbacke sar ñi ngi fi wa keur Serigne Fallou sar ñi ngi fi wa keur Serigne Mor Diarra sar ñi ngi fi ñoo ngi ziar baax tam famille waa kër Serigne Abdoulaye Diakhab Diaw Paxa ak famille moo du Diaw Paxa noo ngi siyaare waa kër Cheikh Mouhamadul Amine Diop Adagani di ziare baax njaboot gi fi teew la laa kër Serigne Aliou Fall Mbawor famille Serigne Modou Fall Nayde la ko dara gi Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy xalifa bi ak soxna Fatma mi nga xam ne moom soxna Fatou Fall mais mag ngi soxna ñoom ñëpp ñu ngi fi waaye tamit waa kër Serigne Modou Mamoun Niang Serigne Cheikh Mbacke Niang di leer ci moom mi ngi fi toog dajale tey mooy fas yéene teg xeer wu njëkk barab bu am solo bu ñuy wax miftaaxul munaa tur wi nag mi ngi bàyyi ko ci euh, gàmm làmmiñu Cheikh Mouhamadul Mountakha wu tedd woowee muy centre d'accueil boo xam ne nii war naa doon téeméeri néeg ak ñeent fukk ak ñeent ak ñaari suite muy dalukaay yoo xam ne kilifa lañ koy beral la waral yitte ji nag mooy dalukaay yoo xam ne tey hôpital bi nga xam ne moom la jàkkaarloo ñu war ko faa def incha allahu rabbi lépp lu ci ne ci turu Serigne Touba la terrain bi turu Serigne Touba la mu Mountakha moo joxe turu barab bi teg ko ci loxo si Ahmadul Badawi téeméeri néeg la ak ñeent fukk ak ñeent ak ñaari suite waaye loolu lépp bu pare li ko waral mooy centre d'accueil la képp ku ñu hospitalisé nga ne ci ba di faju sa loxo juutu sa ginnaaw amoo fenn euh, foo xamante ni nii mën nga faa dem foofee ngay nekk ba sam faj àgg nga dellu ci sa yitte kon loolu lu kawe la liggéeyal Serigne Touba la ginnaaw bi ñu fàggoo hôpital Cheikh Amadou Khadim loolu nekk koy amal dongob Serigne Touba la bu xeebu boo xam ne Cheikh Amadou Moustapha rek la teg fi kanamam muy Alaaji Pap Fall ami bitik ànd ko ak njaboot gi yëpp muy mboolem njaboot gi nga xam mooy njabootu Serigne Ibrahima Sarr Njaañ ak ñi nga xam ne lim naa leen léegi jotaay bi ko tudd laaj te euh, jamono ji tolloo ay yitte damay ba teg foofu sama loxo kañ dañu koy def le trois février tolloo ak ñaar fukki fan ñaar wala ñett ci yoor rajab fee nga xam ne moo nekk ci hôpital Cheikh Ahmadou Khadim ci yoonu Mesere bi incha allahu rabbi bu 11h jotee. boobu laay joxe sama kàddu nag ki nga xamante ni moom mooy euh, Serigne euh, Basirou Ñaan mu yëkëti kàddu ci turu kilifa ak seigne pafal Fall muy sëriñ Abdourahmane Mbacke gayne Fatma mi nga xamne mo nu fi yebal aoudu billahi samiyil alim min iblis ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi sunu kàddu ci ndigal ndigalul serigne Abdourahmane Mbacké mom serigne Cheikh Ahmadou Mbacké gayna Fatma di ab khalifam ñu diko ñaanal mu yag fi lol te wir ak njabotuk serigne Touba gep mu yabal nu fi tay nak ci wayjuram leppam mu Cheikh mohamedou Bachir mom serigne Abdoul Khader ngir niko serigne Cheikh Mbacké bu waxe legi ci jëf ju reuy ju màgg ji nga xam ne incha allahu moom lañuy ñuy war a tàmbali le 3 février sëriñ Abdou nag wax ne suñ ñëwee nañ jël kàddu ci turam waaye itam jottali loo xam ne ñëpp xam nañ ko waaye itam nag ñu fàttali ko ndax alxuraan moon wax ne na ngeen di fàttali ndax fàttali na jariñ ku gëm muy jëf jure ji nga xam ne euh, kenn ci moom. ko xamne ay wayjuram ño andon ak wayjuram te mësta teggi tànk seen mësuñoo teggi seen tànk fañ ko tek lolé itam di lo xamne alquran moko wax ndax mo wax ne minal muminina rijalun saddaqu ma ahadullah alayhi faminhum man khada nahbahu wa minhum man yantadhiru ma badalu tabdila muy wonane pa falemi boutique mi nga xamne suñ borom dalena bolé bu yàgg bolé won way yi mu ànd ak ay waajuram wa ànd ak i magam ba mu nekk fi mu ànd ak moom mu di leen jot jottali rek Pastef boo xam ne xam na ko ci moom te loola nag mooy la fi maam yi bàyyi woon rek béy di ñu tàmbalee léegi euh, jataay bi wane na ne li Serigne Touba ñaanoon ci béy di lépp sun borom defal na ko ko ndax itam loolu mooy bàyyi fi ñoo xam ne la nga daan def ci lu baax ba ñu ñëwee dañ koo àggale dañ ko gën a dañ ko gëna rafetal wolof njaay nak neena waxtu wo jiyee te say toba reer la neena na négal ba mu taw neena su tawee rek nga xam fi nga jiwon neena na kon nak nji saxna mi nga ñam mi ngi koy ñaanal yalla nak suñu borom subhanahu wa taala mu doli ko jappalé ndax kat lepp lo xamné war war nako rek mi ngi koy def te it ko ci dara ayiwu ko dara itam lolu nak ak taalibe rek moko man neena kon mi ngi koy ñaanal diko ko julli jullit diko di ko seeri diko ne ku mu gërëm la te ngërëm lii mu am ci moom itam yàgg na ko am ndax amoon na ko ci ay magam amoon ko ci ay waajuram tey taxu koo dégg tànkam loolu la sëriñ boo xam ne nañ leen ko jot li wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant nag Maulana Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di siyaare siyaare bi nag ñu ngi koy teg ci ak nuyoo bi muy nuyoo ay bokk waa kër Cheikh Ibrahima Sary Njaañ ñoom ñëpp seenum nuyoo dañ koo takk jox ma ko ak waa kër sëñ Abdoulaye Diaw jaw ak waa kër sëñ Malamine Diop ak sunu waa kër sëñ ma Diaw Paxa ak waa seigne Aliou Fall Mbawor nga xamni ñoo ñepp ñëpp seeni njaboot ñu ngi fi ak waa seigne mourou Mamoun ñang seigne basirou Mbàkke mom Cheikh Abdoul Khadir Mbàkke ñi ngi lay nuyu di jox sa way di nuyu Cheikh Mouhamadul muntaka Mbàkke mom mi nga xamne ne la jox kaddu yoon nga ko seuk di ñaan Cheikh Mamadou Mountakha bakke ak njaboot sëñ Tuubaa gépp yàlla nañ fi yàgg te wér ba li nga xam mo la bëggee liggéeyal sëñ Bamba mu and ko ak mboolem njabot sëñ touba gep gannaaw bu dal jàllee nak wax ji mëna bañu guddu a li nu fi dajal rek ñu ñëw fi nonu ñu ko limé légui rek ñooñu ñëpp nak ñoo ñi nga xam ñoy bokki pap pap Fall kon ñi ngi siyaare sëñ Abdourahmane bakke mom sëriñ Cheikh mbagay Gaïndé ma nga xam ne mooy pap Fall Pafal nak day sunu jarbat nun wa Kër Cheikh Ibra ni muy sen di sen nijaay muy sen jarbat yalla dogal nak liggey bi nga xamne ne la fas amal mom nak xamal na ma ne ma defuko ngir bëgg liggey nak ndax képp ko xamne da ngay liggey dañ caa yaakaar ak ak pay nee na da koo def ngir ak da def ngir ak sant jëf ji nga xam ne moom la tàmbali ku ci yàlla andee nee na da koo def ngir ak sant te ku ne xam ne la in shakartum la asidanakum ndax xam na ne kat sëñ Tuubaa moom maanaam maamam yëpp liggéeyee nañ sëñ Tuubaa liggéey boo xam ne liggéey bu nangu la ba xéwal yee mooy baawan ba tey ji ak si ci moom ba liñ fi tudd léegi di jasaaka moo mag yoon wi kon Ibra Sarr Njaañ ba muy ànd ak sëñ Touba booba maanaam dégg nga rabbi ashaabaka bil himma wala tarabbihim bi darsi boobu taxawagul nangu ndigal moo ko may abiyaat yooyu kon nag sëriñ Basiiru Mbàkke e ñu ngi lay seedeel ne Pape mii ak ay bokkam yi mbokkal soxna Ami saar yëpp njabootu Cheikh Ibra Sarr Njaañ sant nañ ko gërëm nañ ko ndax kër Ibra Sarr Njaañ tey ñëpp ñëw nañ sëriñ Siidi saar ma nga xam ne mooy xelif Cheikh Ibra Sarr Njaañ moo bëggoon a ñëwal boppam ñun ñoo ko xamal ko rek njaboot gi bu demee rek doy na kon bu ñu tuddee rek ñu xam ne sëñ Xalil Sarr nga xam ne moo jiite kër Baye Sëñ Sarr moom itam ay rakam ñu ngi fi ak doomam waa kër sëñ Mbacke Sarr moom Cheikh Ibra saar sëñ Abo saar ma nga xam ne moom mag ca kër ga moom it tànn délégation ay ay njabootam yëpp ñëw nañ waa sëñ Falilou Sarr moom ñëpp ay doomi Cheikh Ibra Sarr sëñ Fallou Sarr moom itam sakk na maanaam délégation boo xam ne ak njabootam ñëpp ñu ngi fi ak kër sëñ Mor Diarra Sarr gi nga xam ne mooy caat mi nga xam ne sëñ Mor Diarra saar mooy jur soxna Ami soxna Ami Sarr soxna Xadi Jaw mi ko jur sëñ Abdoulaye Jaw moo ko jur sëñ Abdoulaye Jaw ak sëñ Mat Jaw paxa ñoo bokk lépp kon bu buñ fi tuddee kër sa eh, kër sëñ Malamine Diop Dagana ku ne xam ne ne soxna umi jaw moom lañ joxoon sëñ Malamine Diop Dagana kii ab xalifaam actuellement mooy sëñ Moustapha Diop ma nga fële ca Njaareem waa kër sëñ Mourou Mamoun Niang ko waral ndax soxna maam Xari Diop ba ca kër sëñ Mourou Mamoun sëñ Malamine Diop moo ko jur kon maanaam sëñ Assane Khady Bachir nee mi ngi nuyu bokki julit yeb ak bokki talibey yeb nee na mi ngi ñuy jottali nuyoo Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fii Serigne Touba di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér sunu borom it dolli ko kattan akuk wér ba mu mottali liggéeyub Serigne tubaa bi jëme ko ci bokki taalibe yëpp nee na mi ngi ñaan bu amee lenn loo xam ne am xelam faay na ko rek ñu jéggal ko. ndax wala khad xahid ila adam min qabl fa nasiya lolou mok doomu aadama ñoo ànd doomu aadama dafa meuna fàtte kon mi ngi tambale nuyo bi rek ci njabootuk Cheikh ibrahim Sarr Njaañ ñi nga xamne ne ñoo fi teewal Serigne Sidi sar may khalifa ba te njabot gep nak ma sa teew kër yëpp teew nañ di leen yóbbante ab nuyoo ak cant ak ngërëm ndax yéen kat sëriñ saaliw da daa wax ne yéen yéenay njig laayul yoon wi moo tax ñaare kër gum mas a sanc sëriñ da daan wax sëñ Basiiru Saar na ko bu ma sañoon nga jiitu fa ndax yéen yéenay njig laayul yoon wi ndax ñoom kat ba ne ànd ak sëriñ Touba seen maam booba yoon wi taxawagut de booba yoonu murit amagut sëñ Ibrahima Sarr nangul sëñ Tuubaa lool nee na loolu day gudd ci jataay bii waaye nag yàlla def na ba nga xamee ne sunu borom wax na sëriñ Tuubaa ne ko fasdah bi maa tuumaru ca ba mu waxee rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars Cheikh Adama Gueye moo njëkk a jaayante ak Serigne Touba su ma juumut it Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ moo ca topp kon moom moom de yàgg na ci Serigne Touba de njabootam gépp itam fasteef boobee rek ak yoon woowa ak doxin wooba ca lañ nekk bëgg Serigne tuba yamale wun Serigne Touba ak dara seey nag ci biir Serigne Touba bëggit njabootug Serigne Touba gi. ñi ci des ñëpp itam muy njabootug sëñ abdullahi Jaw Paxa ak sëñ Mut Jaw Paxa ñi nga xamne ñok ñom ñi ño and ak njabootug sëriñ ali Fall Mbawar tuddu ngeen ko legi Cheikh Ibra nak ñëpp xam nañ mu deme ak sëñ Touba Lamine job Dagana mom la sëriñ Touba jox ndigal ca khutbatu wamsasin ak njabootug serigne mohammedul Mahmoud ñang mi serigne Moudou Mamoun ñang ku ne xam nim demé way juram ak Cheikh mohammedul Fadal waye nak mu nekkon ci kër serigne Touba baye mit jeexal lepp ci serigne Touba xamna du ñak luma ma sax waye li ci am solo dal kenn ñewu fi ngir bëgg rek ñu lim la ku fi ñew rek Pastef bu ba mo la andi Lol kep mo len yëkkati ndax yoon wi moom dama naan lu la ci naqari jógewul sa cosaan ya kon nag ci turu Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha na mu teewaal moom Cheikh Bassirou nag teewaaleel fi kilifaam di Serigne Ahmadou Mbacké Badawiyu moom Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne moo waroon a ñëw ñu ànd ko waaye nag moom. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة نوني لاي دوخي موتاخ دا نان بو تيوي رك تيوالين غاما واي يالا دوغال نا ليغي بي بيكو سيغ بافال خلاتي tollo ak ñoom seen kurel googu ñu taxawal sëriñ bi boole leen ak sëriñ ahmad badawi ñu tabax ay tabax yu bari ci université ba ca biir loola nag ca la moom sëñ Pape Fall mii xalaate xalaat bii sëriñ Ahmadou Badawi gunge ko ci xalaat bi ban agsi fii tey ba mu àgg ci sottileti tam war koo tàmbali moom sax bëggutoon kenn yëg ko dana woon da koy def rek ngir sëñ Touba ca lool dong moo ci am solo waaye jëf moom sellal gi moo ci am solo waaye jëf joo xam ne bu ko ñëpp déggee man caaro yi loola siiwal ga wàññiwul dara kon ñi ngi lay gërëm bu baax rawatina nag ginnaaw ba nga ci amee ndigalul sëriñ bi li muy baax baax wa aatul buyootam min abwaabiha da ngaa dem ci sa sëriñ muy sëñ Abdourahman nga laaj ko ci ndigal sëñ Abdourahman nag moom fa seefam akuk taalibeem akuk baaxam ak bëggam señ Touba ak fonk kilifam kenn mënu ko ca jiitu nee na mi di señ basir woor na ko ne bu tàgguwutoon señ Abdourahmane day bëgg ci lam def rek nee na la yalla def ci mom kon ñi ngi lay ñaanal bu baax ndax xam nañ ne baat bi wala fi di wax naan lu juddoo ci am tàgg bu naawut jaaxal ay bokkam waaye sëtub Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ bu amee dogu gu nii ci yoon wi nee na du bett kenn te liggéey bi rëy na de ndax loo xam ne la koy liggéey mat na milliard ak genn wàllu milliard mënoon nga koo def faneen waaye nag fii nga ko dugal moo gën fopp ëpp ndax sëñ Tuubaa kat wax na sëriñ Masamba Diop Sam na ko Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko baax xam nga ne man mii ak daam saan laa daam saan mooy dencukaay gu mag mu ne ko kon de Mbàkke ñu fas yéene doon ay lantinoor mu ne ko loolu de képp koo xam ne def nga ko buñ demee ba fa nga xam ne kenn mënu faa am ak diw muy denkaan la nga defoon ca ndaam saan ga la ma denkoon neene na danaa la ko jox ba nga xam ne daam saan ga seenu ko moo tax sëñ Abdou Lahad danaa wax ne sëriñ bu ñuy jox addiya. te du joxe addiya. daa mel ne ko yor sa waxandeew gaal. ku fóot ay yéreem ba mu set. mu jox la na la dencal ma. bañ àgg nag ci bis bañ war a daje. ku nekk ñëw na la anam mala denkoon nga dénkoon. nga joxe. ba mbubb ya jeex. bu fekkutoon nga def sa mbubb ca gaal ga. xottu gaal rek ngay dese doo am loo waaj. kon ñëg sëñ Pape ñi ngi lay ñaanal jëf ji nga xam ne dafa ànd ak hôpital bi ndax sëñ mu Cheikh Mouhamadul Mountakha ku am yitte la ndax li ci hôpital bi dafa amoon ay borom yu ko moom yàlla def docteur Sourang di ku bëgg dëkk bi mu ñor ko lool xam naa ne loola ca maamam la ko jëlee mu wax sëñ bi ne ko la ci hôpital ba daal dama ci amone xalaat bu reuy moy jënd ko ñu doli ko ci hôpital bi ndax dafa manki fu ay kilifa mëna nek nga xamne buñ bu hôpital bi yokkee ko fofa serigne bi daal di yónne Cheikh Mamadou Bassir juróom fukki million ma jënd ko jox ko ko ba miire nañ ko ngir xalaat loolu rek kon bu yàlla defee moom mii la sës ci hôpital ba mu jënd fa terrain bu mag def ko ci turu sëñ Touba fas yéene faa tabax lii ngir dimbalee ko ñi nga xam ne ña ngay ñëw ca hôpital ba ca amuñu fuñ dëkk te xam ngeen ne hopital bi buñ la waxoon la fay dugg par bis doo ko mën a gëm ndax ngir bari te day yokk ndax dëkk bi moo màggee noonu ndax dëkk boo xam ne at mu jot la cay màgg di ca dolli ko la cay dolli ko chaque année dana mat lu mat juróom fukki junniy nit ci liñ déclaré te liñ déclaré wut moo ëpp kon Touba ni muy buñ ko dut gàttandu yàgg yàgg day mas am jafe-jafe kon nag lii gàttandu ñaanuk sëriñ Touba képp la kon ñi ngi lay ñaanal kattan gi nga ba man koo jëf balaa nagani si yàlla nay asakay yi li ngay am ak li nga ci yéene it liggéeyal ko sëñ Tuba yàlla na ko sëñ Tuba nangu làqal la ko it fa yàq yëgut wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërë ngeen jëf mbokk yi noo ngi rafetlu teewaayu jëwriñu Cheikhul Khadim ca Ndakaaru muy sëriñ Mouhamadul Mbacke yu fay yàlla na ko yàlla fay noo ngi sant baax tam ndawi Cheikh Mouhamadul Badi wi tàbbi nañu ci jotaay bi. di nuyu baax soxna Fatou Mbaye moom sëriñ Abibu moom Touba ca kanam di rek ci sëñ Pap Fall di nuyu njabootug boppam muy soxna ma jigéen ak mboolem soxna yi nga xam ne ànd na ak ñoom xew-xew baa ngi noonu pose première pierre centre d'accueil muy këru dallukaay jàkkaarloo ak foofu ci hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim le 3 euh, février incha allahu rabbi bu 11h jotee ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ñenn bàyyiwuñu fenn yàlla na ñu ko toogee jëf appel bi yàlla na ñu ko toog inauguré ci barke Cheikh Mouhamadul Moustapha asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. amiin amiin amiin amiin amiin